asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci ndigalul sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed xalif sëriñ Mbacke Soxna Lo sëriñ Serif Lo xalif sëriñ Siré Lo Sanoussi mooy fàttali mboolem bokki julit yi ak bokki taalibe yi xarit yi dëkkandoo yeeg wëlëre yeeg am di jàmm yi màggalug Daaru Xuddoos di bis bi xaadim rasul ñibbisee ci dëkkam bu tedd bi di Touba Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim taxawoon ca taxawaayam bu rëy ba sàkk woon ci mboolem julit yi ak taalibe yi ñu fanaan see màggal guddi googu Touba di ko fanaanee jàng alquran ak xasida istixfar ak salaatu ala nabi ak bernde muy bisub ziar ak ñaan ak ak yeesal ak jaayante ci diggante bépp taalibe akub sëriñam talaata guddik ñaar fukki fan ci tamxarit juróom-ñetteeli fan ci weeru septembre 2020 Touba Daaru Xuddoos kër sëriñ Sirelo Sanosi di ca sàkku teewaayu mbooleem njabootu Xadimu Rasuul seex yoon wi mbooleem bokki ndaam rawati waa ndaam Sanosi di ko yëgal njabootu sëriñ Sirelo góor ak jigéen di soññ mbooleem jëwriñ yi ngir ku ci nekk soññ ñamu jiite jiital ci waa fédération Taysirul Asir bi lëkkali kër sëriñ Sirelo Sanosi ci njiitul sëriñ Basiru Siise ak mbooleem membre yi ak taalibe yi di soññ mbooleem section yi ak daayira yi yi ak membre yi ak mbollem talib yi wa daaira Italie jitu Serigne Bassirou Ndiaye ak Serigne Modou Sek ak mbollem membre yi ak talib yi wa daaira Espagne ci jitu Serigne Ma Anta Jum Amérique ci jitu Serigne Papa Ndiaye France ci sering Serigne Mbër bu ak ñamo andal mbollem wa Argentine ci jitu Serigne Talla Cham ak ñamo andal wa Canada ci jitu soxna Nogay Kase ak ñamo andal Serigne Serif Lo mi ngi sant mbollem njabot gi ak talib yi ci seeni taxaway ak seeni pëstéef sa yu ndigal jibe di len masawu ci balaa di ñaan ñu ci wop ñu ci faatu tabbi aljana te sa borom art ci képp kum dalagul te jeexal ko ci àdduna bi sëriñ Cherif Lo di leen ñaan itam képp kuy ñëw ca màggal ga mu tënku ci ndigali sëriñ bi jëm ci tegtali docteur yi fonk raxasu ci saabu ak sel takk ay masque te moytandiku ñooxante bi ngir mën naa jur law ak balaa bi yokku mbas mi mi ngi nuy ñaanal ngërëmul yàlla ak pajuk aajo barke Cheikh Moustapha Mohamed sëriñ Cherif Lo xalif sëriñ Cherif Lo Sanosi ngi ñaanal sëriñam soppeem sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed sa borom yokk aw fanam ak ba mu àggale ay mébétam ba sëriñ Bamba ñëwee fi Touba waajeeg buur yàlla ak yonen ba ñaar fukki fan ci tam la waajee jubbel ba ñëw Tuubaa ci biir ëttam ba Cheikh Moustapha la woolu jox ko bóot ya ak sekkareem ya mbër ma téeñu yan ba Cheikh Moustapha joxe ndigal ca saase bàyyi rakk doom seex ba ca taalibeem ba guddi keroog lañ andi Bamba Tuubaa Cheikh Moustapha wutu ko toog fa der ba ne guddi gii ku ko fanaan si Tuubaa texe tey ak ëllëg bisub la yow ba ne guddi gii ku ko fanaanee màggal buur yàlla faj sa ajo far ba wér gudd fan wërsëg ngërëm ak barke ak texe ñeel na waaju màggal bis ba la qualité fait Amen.